salaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyuwaat baax a baax di leen wax ne na ngeen ko bëggee rek lañ koy defee ak yéen tey nag ñuy def déplacement jóge Dakar ñëw fi nga xamante ne bii moom moo di ko jaar moom mooy xam-xam bi nga xamante ne bii tey moom lañ war a fekk tey tey nag ñu fi koo xamante ne bii yàlla da ko baaxal ci wàllum xam-xam mi ngi tudd Thierno Moutar Diallo Thierno Moutar Diallo nag nekk koo xamante ni bii dafa def ay révélation ci li nga xamante ne moom moo di dëkk bi wane ak li nga xam ne moom moo di xam-xam ñu ñëw tey fekk fi ay affaires yoo xamante ne bii tubaarkàlla macha allah dañ ci dugg Cerno ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ne bismillah aha di leen baalu akka noonu ngati aduna ñun duñu keb benn doomu aadama nit nu munta toll duñu ko keb ngati yéen ci li ngeen di liggéey tamit xëy na am ngeen ci xam-xam seen xam-xam am na lu mu fu mu ci toll loolu moo waral ñun duñu keb benn doomu aadama waaye ñu ngi leen naan bismillah lii moom yéen a ko gisal seen bopp gis ngeen kër gi nu mu bare ay nit gis ngeen oto yi niñ fi bare taalibe yi ñu fi bare gis ngeen nu mu xatee loolu kese moo warloon nag ngeen ma doon woo di fi bëgg a ñëw duma leen mun a bàyyi ngeen ñëw aha dama leen di ñaan tamit benn mbir dimbali leen ma nit yu fi nekk kenn bu mu génn télé bu leen ci jël kenn muy a télé ngati ñoom ñëpp dañoo ñëw ndax sutura moo leen fi indi ak si seen soxla dama bugg ñëw kam ngeen jéggal ma rek kenn ci ñëw bu leen ko jël macha allah am na solo waaye tamit nag balaa ñu dugg ci xam-xam bi am loo xamante ne bii foo ma laaj la ko ndax tey ñëw naa fi gis fi ñoo xamante ni bii tey buñ leen ko wane woon gën a déedéet ay star ay mbër ñoo xamante ni bii euh, képp koo képp koo wax turam fi ci Sénégal rek nga ne déedéet yan relation am ak ñoom ba tax ñoom ñu jógee fële nga xam moom moo di Dakar ñëw ba fii ci Fouta. waaw xam nga ñoom këy na man lépp lu nekk si ñoom ginnaaw yàlla ak yonent man maa ko tëf ci ñoom moo waral ñoom bu ñëwee fii ci kër gi taalib bi rek la ñuy mun a nekk fii xay président bu ñëwee fii taalib bi rek ngay mun a nekk. nga man ku fi ñëw day fekk lu ma lu nekk ci yow man maa ko def ci yow moo war a gis nga ñoom bu ñëwee fii nii. di ñuy añ bi bu ji bu buñ ko toggee bu jeexal ñuy yëkkati añ bi di jox nit ñi ñuy lekk ay kilifa lañ ñoom ñooy taxaw ci waañ bi di yëkkati añ di ko jox nit ñi ñuy lekk ñoom ñooy taxaw taxawaay doomu kër gi taxaw taxawaay ñu bokk ci kër gi loolu noonu fii taalibe moo fi am fii star amul fi taalibe moo fi am. fii ku fi ñëw taalibe nga. macha allah sëriñ bi tey damay dugg ak yow ci li nga xamante ne moom moo di xam ñu nee xam-xam xamle wax naa ko léegi euh, tey nag dañuy ñëw euh, ci li nga xamante ne bii tey euh, mën naa ne moom itam xam-xam la mooy li nga xamante ne bii mu wàllum ubbeeku tey ñooy tey dañ koy benn benn nañ ñëw ci ubbeeku sëñ bi lan mooy ubbeeku. waaw ubbeeku ci wàllum wërsëg sa nit si sa wàllum si sa wërsëg mooy ubbeeku nit bu tëju nag soo tëjuwee lépp li ngay ut ci àddina boo jógee doo ci am président boo nekkoon ak moom li ngay am ci moom mooy photo nga foto moom wala ñu naan diw ak président ñooy ànd wala diw ak président ay karit lañu waaye munoo ko fekkee gis ko mu ngi yor alal ci poosam mm-hmm. foo ko gis da ngay gis mu ngi banque waaye foo ko gis da ngay wax de diw ah karitu président la de diw de moom moom ak président ñooy ànd diw de diw euh, président bugg na ko waaye ñu mun a gis nga yor li ngay fajee sa aaju lan faj sa soxla loolu mooy tëju nit soo tëjee mun nga xam ñu am alal mun nga dem fu am alal waaye yow doo am alal aha sëñ bi lan mooy lan mooy faral di tëj doomu aadama tëj nit day am ci bépp ci mbir yi nit di nga tëju cat da lay fees sa yaram nga tëju cat noonu moo ci gën a bon nit dañuy tëj sa biddéew nit dinañ la liggéey tëj sa biddéew tëj sa wërsëg aha nit lay liggéey tëj sa biddéew tëj sa wërsëg fekk li nga xamante ne fi nga jublu déedéet sa wërsëg du fa jublu boo defee nii sa wërsëg nii lay def say kabar dafay dëgër lépp li fi nga dugg tolof tolof nga fay jëlee lu ngay jot tolof tolof mooy gën a bëri ci àddina tëju noonu lay def ci doomu aadama ci wàllum jigéen tamit bu dee da ngaa tëju doo am borom kër doo am dara li nga xam te mooy banne ko àddina lépp li nga jublu doo ci am lu la neex te ju baaxul ci doomu aadama. Mm. ko doon laaj chaque instant ngeen ñuy laaj kañ ngeen di dem Fouta kañ ngeen di moom moo di Fouta fas yéene indi ay révélation ci ki nga xamante ne moom dafa am solo ci benn côté bi ngati nit mun nañ la defal bayre ci bayre bu ñu lay defal bu àndul ak musulaay bayre bi mun na la indil gàllankoor aha bu ñu lay defal bayre dafa war a ànd ak musulaay bayre bi bu àndul musulaay loolu dina la indil gàllankoor man balaa maa ngi la defal bayre damay xool sa biddéew ma xool sa biddéew ma xam ne ne bayre bi ma lay defal dafa ànd ak sa biddéew nga di da ngay gis ay doomu aadama yi nga xam te ne fu ñu taxaw ci adduna bi dinañ leen yuuxu dinañ wax diw diw diw diw diw waaye doo mun a am alal da ngay dégg da ngay dégg tuuram nga dégg diw nga dëgg diw waaye bu ñëwee ci yow bu ñëwee ci yow da ngay fekk ne kii nii amul dara lu mu munal boppam munu mënulul boppam dara tuur bi kese moo nekk foofu noonu man suma taalibee du bayri boobu laa lay defal su ma la defal lay bayri dama lay defal bayri mu ànd ak kaaraange dafay ànd ak alal ak ubbeeku mu ànd ak tuur nga xamante ne tuur bi lu nekk lañu koy déggee bu baax xam nga nit mun nañ déggee tuuram lu nekk mooy nga defal nit bayre bayre bi nga xamante ne amuloo ko amuloo ko yoon moo loolu mun nga ko indil gàllankoor nit bu génnoon adduna sax dañ ko coow bayre mun na la topp mu ànd ak cat sa bayre bu la toppee nga ànd ak cat balaa muy feeñ day fekk génn adduna wala nga dal ci ay jafe xam te ne jafe ne bi sëriñ bi def na ko waaye nag sëñ bi ba euh, ma ko waxee léegi léegi nag dañuy jëm euh, ci li nga xamante ne bi moom moo di suñu mbokk moodu moodu yi nee nañ daal ñoom dafa mel ñoom daal ñoom amuñu part yow ndax ñoom dañuy bëgg li nga xamante moom moo de ay papier te duñ ko mën a am ndax am nga ay révélation yoo xamante ni bi tey ci ku bëgg papier te nekk fi mu waaw foo munta nekk ci àddina bi bu dee da ngaa bugg kayit kayit nga bugg am mun naa la dimbali nga am kayit ni ma lay dimbalee nga am kayit mooy yow sa bopp dama lay wirdal ma ñaanal la yàlla nekkul kayit kese mu faj sa soxla mu faj sa aajo mu ubbi sa wërsëg lépp li nga jublu nga am ko ngati nit boo ko ñaanalee am na kayit nit mun na am kayit mu bañ am alal nit na mu am mun na am kayit mu tëju nit mun na am kayit mu tolof tolof di ko jëlee fu mu nekk noonu man dama lay sang lu nekk lépp lu tilim si sa yaram lépp li nga xam te ne moo la tere woon am kayit moo la tere woon am alal moo tere woon am jàmm loolu yëpp ma dindi ko nga am jàmm nga am kayit nga am alal man noonu lay liggéey ak taalibe du ma liggéeyal kayit kese man danga may soo ma woowee danga may ne liggéeyal ma nga dimbali ma. doomu wax liggéey ma ci lii kese man maa lay xool ma xam li ma lay liggéeyal waaw man nekkul da nga may wax rek nga ne ma liggéeyal ma lii déedéet man maa lay xool xool sa biddew ma xool lan laa lay liggéeyal ma liggéeyal la ko nga ne alhamdulilah ñu bëri tey lu leen yàqal lu leen sonnal ci àddina bi moom mooy cat cat moo sonnal nit ñi tey ñu bëri loolu moo leen sonnal waaw cat baaxul ci biir cat wax naa la ko nee naa la euh, cat dafa nekk loo xamante ne bii yenn saay mu indi la ay tolof tolof yoo xamante ne bii sax yow doomu aadama bi sax yow doo ko attan ci biir loolu ñu gis ñëw tey fekk fi koo xamante ne bii euh, dañ cee tombé nga koy sàng kooku lan moo ko dal ba kii nii dal xam nga addina gàllankoor fu nekk lay jógee kii ki ngay gis kii kilifa bu mag la dafa am alal. ba nit ñi jëpp fu mu nekkoon béréb bu mu nekkoon moom moo fa ëppoon alal mu ci commerce la lay def ngati ti nee naa leen bu leen jël kenn ta nit yu ngeen fi fekk man kenn denn doomu aadama duma ma nangu mu génn télé nga ti sutur moo la fi indi lu leen fi indi seen soxla bu ci génn kenn kenn képp ku xam ci man lu baax na ko def ci xolom mu ñaanal ma waaye soxla mu koy wax ci télé nga bi mu koy defal dama koy defal te yàlla tax man yéen kay mun ngeen ñëw def ngeen seen i def def ñëw ngeen munuma ci yéen dara nga ci seen liggéey la mun naa nangu wax ak waaye ñoom nit ñu des yi ñoom kenn nga ci jabaru jaambur yaa ngi fi ay kilifa ñu ngi fi ay nit yi nga xam te kenn bëggul ñu kam ci sëriñ lañ jëm ñu ngi fi ñooñu nag moo waral man bëgguma ngeen ci génne kenn ci ci télé man loolu man jéggal naa leen ko jéggal naa leen ko bu baax sax loolu man jéggal naa leen ko waaye ki nga gis ni dinaa ko sang fi fukk fi ak juróom ñaari ñeenti far nekk jours boo leen fi ñëwaatee di ngeen fekk mu ñëw fii ànd ak njabootam indi otam mu taxaw mu delluwaat ci béréb bu mu nekkoon waaw. ci benn yoon da nga koy sang da nga koy sang sang. benn yoon laa koy sang lu des li man maa koy def si wirtu lool ci sama course bi laa koy wirtu bu soobee suñu borom ci li may wirtu noonu balaa wirtu bi di jeex. lépp lu nekkoon ci moom ci musiba ci gàllankoor lu nekkoon ci yaramam nga xam te ay def-def la nga xam te ne cat day jeex bu mu dina dellu fu mu nekkoon boo mu ëppaat foofu noonu loolu man maa leen di koy seedal maa leen ko defal aayati balaa ngeen ñëwaat fii bu soobee yàlla da ngeen fekk moom mun na te boobaa bu soobee yàlla doo ko génne télé waaye moom dina leen ko wax ci noppam soobee yàlla macha allah loolu am na solo ba tey sàng bi nag eh, dama ñëw eh, xam nag man moom moom lu ba gis rek dama koy laaj <laughs> ma ñëw macha allah eh, fekk fi benn butéel boo xamante ne bi butéel bi booba tey maa ngi ko gis kenn xamul nag butéelu lan la ma bëggoon exactement nga wax ma butéel bi lan mooy njëriñ. butéel bi ngay gis ni butéel bi lu muy njëriñ bari na kii nii góor bu dem ba nga xamante ne yow waxatoo si sa jabar dara nekkatoo góor yow sa njortu jeex na ci wàllu ngóor loolu amatoo ci yaakaar butéel bi ni laa lay jox di nga dellu nekkaat góor boo mu génn ni nga meloon te bu soobee yàlla ci ngay dee man su ma la defalee ngóora ci ngay de ñetti fan sa ngóor day ñëwaat sa palaas te di ci ngay génnee àdduna waaw lii ay ren la li nga xam te ne def li ngay gis nii béjjën la waaw ci moom laa koy defee ñu waaw ñu ma ko jox ñoom xam nañ ndi ñetti fan kese laa la koy defal bu soobee yàlla day ëpp fi nga nekkoon man maa koy defar maa koy jëlee ci àll maa koy defar dafa am bis yu ñu koy jël dafa am ni ñu koy jëlee bu ñu koy gas kale bu jigéen bu xam te ne xamul góor moom lay àndal moom moo koy gas moom moo koy gas moom moo koy weer moo koy déb man maa koy lu ma ciy def rek man maa ko ciy def leneen waaw. macha allah sang bi euh, ni ñu cërale woon ci waxtu jeexul sax waaye nag euh, dañoo gis ne clients yi dañ fee bari te ñoom itam dañ laa war a gis ah kilifa yi bari fii te ñoom itam dañu laa war a gis ba tax na rek xam naa dañuy ñëwaat ndax il faut que ñu defa il faut nag ñu xool si waat waa ji nga xamante ne bii moom ngay sang fan lay mujjee waaye nag ci biir loolu nag balaa maa tëj damay dugg ak yow ci benn question rek balaa maa tëj muy wàllum muy wàllum wàllum wàllum euh, comme ni ñu koy faral di waxee wàllum cat comme ni ñu ko waxee léegi wàllum cat cat fan la mën yóbbu doomu aadama cat moom moo mun a yàkk àddina nit hmm? yàq kabaar nit yëpp delloo nit ci lu bon jëlee la ci lu baax delloo la ci lu lëndëm moo la mun jël ci leer delloo la ci lëndëm delloo la jël la ci bànneex dugal la ci nakkar yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp bépp doomu aadama lay ñaan sa àddina yàlla na la yàlla musal ci cat nit mun na bañ a nangu mbir sëriñ mun na bañ a nangu lépp waaye nit xam na ne cat am na loolu yonante bi moo ko njëkk a wax cat loolu lu am la waaye man nekkul euh, damay wax ndax àddina nekkul damay wax ndax nit nga ñëw ngeen ci kër gi fekk ngeen fi lépp damay wax ndax doomu aadama dimbali nit ñi ci wàllum cat bu soobee yàlla bu dee yaa ngi nekk ak man yaa ngi gëm lu ma yor yaa ngi gëm li ma lay defal cat du la mus a dot ci àdduna du la mus a yàqal sa wàllum wërsëg dinaa yëkkati sa wërsëg doo mus a dellu ginnaaw bu bis bi ngay génn àddina loolu nga ngati man nekkul damay wax nga fay ma ma defal la dama lay wax téyel sa alal nga toog fi nga toog ma fajal la sa aajo nga xool yow bu ñuy jëfalante sa war wërsëg fu mu toll ak sa am-am ak sa mën-mën ma ne la nattal nga xam yow fi nga toll ñu jëfalante balaa neuf jours ma woon la nga am li nga xam te musoo am musoo ko yaakaar sa addina ma wax la li may fay nga doog a maa fay acca mbokki internet yi dégg ngeen ko noonu tey nag ñu ñëwoon fi nga xamante ne bii moom moo di euh, Fouta euh, fekk fi sëriñ nga xamante ne tubaarkàlla macha allah nee naa dafa def ay révélation euh, ci internet bi ba tax na ñoom mbokki internet internet yi ñoom ñoo doon laajaat pour ñu ñëw fi waaye nag sang bi yaa ñu ko wax sànq yaa nañu bu ñu jël kenn parce que bëggoo euh, kanamu kenn feeñ ndax ay kilifa ñoom ñoo fi nekk waaye nag daf ci am koo xamante ne nag nee na moom il faut que ma ko ndax euh, ndax lu baax li nga xamante ne bii def na ko ak yow ndax li lu baax li nga xamante ne bii saa nekk moom nga dund ak moom forcé nañ nag wax nañ nag ba taay mais nee nañ moom nee na il faut que moom ñu jël ko moom mu def ay témoignage ndax ndax yow tamit mën nga ñoo may loolu waaw xam nga wax naa leen loolu man ngati du ci moom ci ñeneen nit yuy bugg a ñëw ci man wala yeneen kilifa yu may jëflanteel xam nga loolu mu ngi mel ni da ngay weer nit ñi da ngay nekk di def ndax nga am ay client da ngay nekk di def ndax nga am ay nit te yàlla xam ne man loolu nekkul loolu laa ci wër moo waral damay wax bu leen jël kenn kanamam bu leen kenn bu mu ci wax nañu bàyyi rek waaye moom kii boo gisee mu ngi wax moom ndeysaan ngati moom xam na lu ñu fu fuñ luñ jëflante kii bu bu ma koy kam nekkan na ci tolof tolof nekkoon na kilifa daanoon na liggéey nekk ci ay kabaar di am lu nekk ñu jëlee ko ci ay nit ñu yàkkal ko ñu jëlee ko ci ay nit ñu koy yàkkal ko dindi ko ci kabaar yu mu nekk yàlla def man sumu bopp mu dem ba munutul am dara ba njabootam ñu jëlee ko ci kër bu mu nekk mu nekkaat ci ci luwaas fu mu nit ñi yëpp daw ko ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sumu maam man maa ko dimbali ba tey fu am na lu ëpp fu mu amoon jëndaan na ay kër man kese jëndal na ma ñetti oto bii moo nekk suñ ñetteem oto defal na ma lu nekk ci àddina loolu kese doyoon na jarul woon muy dem ci télé di wax ni loolu rek doy na waaye euh, moom bu dee dafa bëgg a wax loolu tamit moom nangul naa ko na wax waaye moom kilifa la lu mu munta kontaan na wax waaye dimbali leen bu leen génne kanamam waaw na wax te tamit mu koy ñaan yàlla bugul kuy fen li nga xam te moom rek laa jëfalante ak moom loolu laa ko defal nag wax loolu kese bu waxee lu ëpp loolu émission bi da ngeen di koy dindi doo leen ko dugal ngati yàlla buggul kuy fen moom waxu ngati lu muy wax noonu man déglu ma ko muy wax buggum muy wax ndax nit ñi di dégg lu muy wax ñuy ñëw ci man day waxte yàlla moo tax kon na wax ci xolam luy nga xam te loolu la ñu defante loolu la ñu jëfalante bu mu ci yokku dara waaw. mbokki internet ji gis ngeen ko noonu sang bi ñu bëggoon xam tey lan ngay tëjee émission bi. yàlla na yàlla faj seen aajo yàlla na leen yàlla yokkal wërsëg yàlla na leen yàlla yëkkati lépp li ngeen xam loolu ngeen bugg yàlla na leen ko yàlla defal ci wàllum lu baax yàlla na leen yàlla yëkkati bu baax kontaan naa jara ngeen jof jara ngeen jof yéen ñëpp jara ngeen jëf lay jaajëfal mbokk internet di leen fàttaliwaat ne ñoo ngi fi nga xamante ni bii moom moo di euh, ci tamit nag euh, sang bi euh, ku bëgg jokkoo ak moom numéro boobu noonu nekk ci bas de l'écran bi moom moom ngay daal di moom ngay daal di composé pour am li nga xamante ne bii moom moo di sang bi waaye nag mbokk internet yi nag di leen di leen leen di ne leen nag il faut tamit ngeen insister parce que moom tam dafa naqaree jot ndax parce que tey ñëw nañ fi gis nañ fi li nga xamante ne bii mosuñu koo gis fi ci kaw suuf ay di leen jaajëfal baax baax di leen jox dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf defe naa ni ginnaaw yàlla tey su ma jugaatee ginnaaw yàlla moom la te tolloon naa ci ay diggante yu méttee méttee métti yàlla wërsëguloon na ma nag ma ne ci entreprise nekk fa directeur général bi nekk fa chef yi jamonoy dox jamonoy dox xëy ñàkk lépp lu ma yoroon ñu dàq ma ci entreprise ba sama oto yu ma yoroon ma ñàkk ko dem ba ñi nga xam ne jegewoon nañ ma sax gisatuma ci kenn ndax am na ay njaboot foog ma dundal leen te ñàkk naa mais yàlla moom ci kàttanam wërsëgal ma ba ma ñëw ba ma ñëw Fuuta ba ma fi ñëw sax yàlla xam ne ni paas aw ma ko woon fexe naa ba dajale ba dégg ko ma ñëw fii ci Fuuta mais ba ma ko gisee defe naa ni si la sama aajo faju ndax ñëw naa fi ñu defal may sangat wax ma loo xam ni ne ma ci juróom-ñeenti fan maanaam neuf jours lii ma lay defal di ci gis sa bopp biir juróom-ñeenti jours yi ci lañ ma woowaat ma commencé liggéey fu am doole ba fi mu toll nii demal naa sama bopp am sama entreprise bopp nit nag bu la defalee coloré ba nga gis ci sa bopp defe naa ni du ma su ma ñëwee fii c'est la première fois may wax ci média soo xoolee ni ma waxee nii sax xam ni man xaw ma wax ci média ñemewu ma ko maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yàlla na fi sax dàq di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ginnaaw yàlla nii ma mel tey ba ma jugaat ba ñëpp naw ma moom la.